Euh, Hamid Sy ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al bi. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. Babacar ñuy bi ñu fas yéenal ci waxtaan wi waxtaan wi nag euh, tey dafa jëm ci euh, yeggalik liggéeyub jumaay Tiwaawan gi nga xam ni dafa yemook ak ñuy. fàttaliku ñaar fukket ak ñett a ngi nii euh, dëddug sëriñ Abdou Aziz si euh, Dabakh yëf yi euh, tey lay door mën na noo xam njëkk ginnaaw ci commission communication comité pilotage bi ñu dénk liggéey boobu ci nga bokk nu ngeen fas yéene organiser li jëm ci fexe ba ku ne dugal loxoom ci yëf yi ba mu ba mu yemb jumaa ji mën a yegg ndorteel gi tey nu muy tëddoo alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidi al awalin wa ala wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaan ila yawmi din sëñ Babacar nu ngi nuyu bokki euh, auditeur u RFM yëpp di jiital ci nuyo bi seen kilifa li nga xamante ni mooy Youssou Ndour ak euh, ñu koy jàppale ci liggéey bi ni nga ko waxee tabarakallah dañu ñëw fii ci ndigalu suñu kilifa mu di alxalifa Seyd Aboubacar Ibn Mansour ci mébét bu mu am mottali liggéeyu mag ñi ñi ko jiitu woon ci yoon wi ci feeñal seen yéene ci loo xamante ni xadara malik yee yëpp daf ko bokk mu di liggéeyu jàkkay Tiwaawan bu nu fàttalikoo ci année 2019 mois de novembre ci gàmmu Tiwaawan gi wees la feeñal yéene bi mu ci amoon ànd ci ak njabootu Cheikh El Hadj Malick si radiyallahu xamal leen xamal jullit yi ni fas yéene na door li nga xamante ni moo di yeggale liggéeyu jumaa jooju mu nekk jumaa joo nga xamante ni ku ne xam ne ci histoire li mu euh, symboliser ci wàllu euh, boole jullit yi ndax dañu wax ni 1903 euh, ci la suñu maam Cheikh El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu am autorisation wu taxaw ko gannaaw bi mu ñëwee fekk si bokki Tiwaawan yu ko woowoon ni ko dañu bëgg nga ñëw defaral nu sunu diine ndax diine ju xaw a xajam la nu dégg sa xam-xam dégg sa leer bëgga taataan ca xam-xam boobook leer boobu moo tax nu bëgg nga ñëw wéttali sunu fii ci Tiwaawan mu xam ni liggéey bu nekk ci wàllu diine faw nga teg ko ci falsafa boo xamante ni dana la may nga mën ko mottali mu tibbe ko ci ñett ñett yooyu mu tënk ko ci benn acrostiche mën nañu wax bu ñu wax muy benn baat di jaajuba jaajuba nag dafa jël silaabu benn ci banqaas bu nekk bu nga xamante ni fas yéene na ci tabax li nga xamante ni moo di mission mu di jàng parce que xam na ni nit bu jàngul du mën a jaamu boromam na mu ware beneen bi di julli ndax xam na ni mooy buntu ngëm beneen bi di euh, bay moo di wàllu liggéey ñu tënkee ko ci jaaju ba ah tabaarakallah bi mu ñëwee Tiwaawan li mu njëkk a def mooy fexe ba wutal leen fu nuy jaamoo yàlla tabaarakallah mu ba mu amee autorisation bi 1904 la liggéey ba pare mu jiite fa juma loolu nekk symbolique bu rëy tabaarakallah alors bi mu yàlla defee mu nekk benn zawiya boo xamante ni fa lay organiser dundu jullit yi yàlla di ko def ba mu jóge fii bi mu fu jógee ay njabootam ñëw ku nekk la cay sa pàcc ak sa contribution nga indi ko ci ba ci suñu wayjur bu baax wa suñu maam bu baax wa mu di El Hadj Abdoul Aziz yal na yàlla yokk leeram nga xam ni 14 septembre la génnoon àdduna. justement foofu la fa laa bëggoon ñëw sax euh, ñu nemee nemmeeku ne coïncidence am na ci lancement wu travaux yi ak euh, dëddug maam Dabax euh, c'est fait à desin wala daa am li ngeen ci séentu. waaw dafa am lu ñu ci séentu ci symbolique parce que euh, xar kanamu jumaa ji tey ni mu mel nii ci yéene suñu maam ju baax jooju la ko yàlla euh, mottalee tabaarakallah mu xar ci tànkam ba mu yegg fi mu yegg euh, wax nañu ni 1979 la njëkk a def woote woote boobu mu ci woote ña ko ca fekk si woon bëri na ci jullit yi ah, loola mu yéene woon loolu moo la yàlla mottali moo tax xalifa bi wax ni woote bi mu bëgg a def te mu dawaloon ko ca euh, gàmmu Tiwaawan bi wees dafa bëgg ñu dëppale ko ak bis bi nga xamante ni moom la euh, génn àdduna ngir barkeeloo loolu ca bis ba barke loo loolu ca bis ba ngir yàlla barkeel li nga xamante ni moom la ci bëgg a naal. fi mu toll nii liggéey bi lu mu laaj ci ci wàllu koom ngir mu yegg fa ngeen bëgg mu yegg. waaw liggéey bi fi mu euh, li li mu laaj euh, ña ko war a saytu ñi ngi ci ndax semaine bi passé rek entreprise bi nga xamante ni moo ko war a mottali choisir nañ ko. entreprise ba dem na fa ba def reconnaissance ba xayma li nga xamante ni euh, moo war a nekk luñ ci war a yokk war a dellu siwaat pour wax nu exactement lan mooy li nga xamante ni moom la soxla mais li am solo mooy sëriñ bi dafa mottali mën naa wax yàkkamti ak yéenewu ay njabootam ndax am na initiative yoo xamante ni ay initiative yu spontané la yu jugoon euh, doon ay njabooti ak ay bokki taalibe yoo xam te ni noo amoon yéene te kenn santu leen ko sax waaye nu yëg ni euh, bërëb bi war na soppiku ñu dajale seen alal ñëw seetsi ko ni ko lii kat noo ko dajale a ah, bëggoon ngi mu doon door mu leen déglu leen ma rek ba ma waxtaan ceeg ñi mu ci war a waxtaanal ah, li mu jiitaloon mooy waxtaan ceeg njabootu Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu loola def na ko ci anam ba mu gën a rafete waxtaan ceeg ñoom ku nekk néeg bu nekk mu woola waxtaan ak yow ca loola ah loola moo ko may mu am euh, sañ-sañ bi donte sax bu ko décidé woon te concerté wu leen euh, kenn du ci am dara loo ca wax waaye bëgg lu rafet tax mu concerté ñëpp waxtaan ak ñëpp tabarakallah ngir xamal leen ni woote boobu dana ko amal tey mën naa wax ni bisu tey bi bu doon football dañuy wax ni euh, coup d'envoi la ci liggéey boo xamante ni macha allah la ca war a dugg lu yaatu la loolu moo tax mu xam ni contexte bi ñu nekk nekk contexte boo xam te dafa daje dafa xaw a jafe war naa wax sax ni warul ci contexte boobu la wax ni dana ko def waaye du woote li mu décidé moo di taxawal benn comité de pilotage comité de pilotage boobu ay banqaas a nekk ci biir mu sant leen ni leen na ngeen liggéey ci façon boo xamante ni da ngeen di dématérialiser euh, woote boobu euh, ñooñu liggéey ak ay techniciens maanaam tas ko tas ko saawal ko saawal ko mu ngi noonu saawal ko comité de pilotage boobu nag mu ngi tudd jamaatu nuur as sunniya njabootu Cheikh Alhaaj Malick yu bëri bokk ci biir ak ay ñu ñu ràññee ci xadratul malikiya euh, comité boobu décidé ni tey ci vingt et une la ñuy def lancement bi télévision yi ci Sénégal ak site yeeg ñëpp synchroniser ndoo ko ngir sénégalais yi dégg message bi nga xamante ne moom la xalifa bi bëgg a dégtal njaboot yi dégtal ko Sénégal yi dégtal ko jullit yi incha allah. Euh, nga ne li mu laaj bëri na euh, am na ay jamono njiit réew mi déggoon nañ ko bi mu demee amoon yéeneem euh, lan moo nar a doon contribution wu nguur gi ci mottali liggéey ga. waaw loolu moom xam naa ne dañu koy bàyyeeg xalifa bi. Hmm. mu wax ko bu jotee. tabaarakallah ak na mu lëkkaloog. Euh, état bi ak président de la république euh, son excellence Macky Sall ngir euh, moom it la mu ci war a def mu def ko ci. parce que édifice la boo xamante ni jàpp naa ni dafa bokk ci patrimoine national. patrimoine culturel président li mu waxoon sëñ Hamid si li mu waxoon mooy dinaa leen yeggalil seen jumaa ji boobaak léegi yeggaliwu ko ba ngeen soob lii ngeen di sóob tey ci taalibe bu ne ak sénégalais bu ne. bu ci bëgg a dugal loxo mu dugal ci loxoom njiitu réew mi diggéem googu lan moo ko fànq lu lu ko gàllankoor. dara gàllankooru ko euh, jàpp naa ko waaye dafa nekk loo xamante ni euh, jullit yi ci waxuma sax Sénégal waaye jullit ci àdduna bi yëpp dañu am euh, wareefu dugal ci seen loxo ndax tabax jàkka dafa bokk ci ibaadaat yi. jël sa alal dugal ko ci jumaa loolu dafa bokk ci sadaqaat yi. jàpp nañu ni même bu ko doon tabax jaadu na li nga xamante ni mooy ñi yaakaar Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu nu mën leen a may ñoom it nu indi ci seen yéene daqowul nag ak moom yéene ba nga xamante ni moom la ci am ngir euh, euh, mottali ko comme ni nga ko waxee woon. Mhm. Euh, fi toll nii ku bëgg a dugal loxoom ci yëf yi fu muy jaar. ku bëgg dugal loxoom ci yëf yi fi ngay jaar moo di plateforme bi nga xamante ni tey ci guddi ñi ko amee dana nu expliquer ndax plateforme la boo xamante ni dafa lëkkaloo ak plateforme euh, de paiement yi am ci Sénégal yëpp ak banque yeeg yëpp danañu expliquer exactement ku ci bëgg a def sa sa ndimbal ak sa jàppale ak sa yéene fan nga koy jaarale ba mu yegg incha allah ndax li mu ci yéene moom xalifa bi mooy mu nekk loo xamante ni dafa sécuriser mu nekk loo xamante ni day yomb nit fu mu mën a toll même boo yoroon euh, téeméeri dërëm ni dama ko ciy dugal da nga am yomb-yomb mën ko cee dugal te du la poser benn problème te dana dem ci source bi nga xamante ni moom lañ ko war a utiliser. collecte bi ndax am na app. collecte bi amul app comme ni ma ko waxee rek door la boo xamante ni tant que jumaa ji yeggul. collecte bi day continuer mais est-ce que fixé wu ngeen objectif pour achèvement travaux yi. waaw ndax dara lancement la waaye itam egg ba lépp pare c'est autre chose. waaw loolu euh, entreprise bi ciy liggéey. Mhm. def na saytu yi ba xam exactement euh, normalement ba keñ loolu bu jotee incha allah tey ci guddi dana am luñ ci dawal mais euh, la ca war yëpp am na yeneen communication yoo xam ne dañu ko war a def ngir nit nit ñi mën a xam. liñ ci soxla lu mu doon ak ci ban délai lañ koy defee incha allah. Mhm. Euh, kon télé yëpp nañ ci méngoo euh, tey manko ci euh, ci plateau spécial boobu nga xam ni day mandargaal ndorteelug liggéeyub yeggalug jumaay Tiwaawan gi nga xam ni sëriñ Babacar Ibn Mansour xalif général de Tidiane moo ko woote sëñ Hamid si yaa yor itam xibaar ak jokkoo ci gàmmug Tiwaawan gi. mënees naa xam ba xam euh, situation wér-gu-yaram ci réew mi coronavirus gi gàmmu ren dana am ci tuwaan tuwaawanam déet. Babacar doon na xaar nga laaj ma euh, laaj boobu ndax laaj bu am solo la tabarakallah euh, gàmmu moom ala kulli xaal dafa nekk loo xamante ni maanaam màggal yonent bi faw mu am xanaa kay naka lay amee la nuy laaj ndax ku ne xam na ni contexte bi am na lu mu laaj ak lu mu laajul incha allah du ñu jiitu suñuy kilifa ndax xam naa ni bu jotee lañ ca war a wax dana nu ko wax xalifa bi bu jotee dana wax la ca war euh, waaye xam nañu ni ku bàyyi xel njaboot la ku bàyyi xel réew mi la ku bàyyi xelit euh, ñi ko yàlla dénk la euh, loolu moo tax incha allah bu jotee la mu ca war a wax dana ko wax en toute responsabilité comme ni mu ko defee ba mu fi nekkeek léegi mhm. lu xew mu war ci jël responsabilité am ci jëf dana ko def ci wax dana ko def ci euh, dig digal digle dana ko def tabarakallah ci njàngat ak njort ginnaaw moom jàkka yi mu sax ba léegi dogalagul ñu ubbi leen te euh, gàmm gi daanaka yegsi na mënees naa euh, jàngat ak njort ne xëy na du du ñu wooteek dajaloo ca Tiwaawan ci gàmm gi mën nañ ko njort mën nañ ko njort waaye loolu dañ koy bàyyi am loo xamante ni sa kilifa ci war a wax boo ko ci jiitoo dafa mel ni danga nga koo waaw. loolu mu ngi noonu moo tax dañuy bàyyi rek bu jotee incha allah. jërëjëf la ci war a communiquer ñu ko xamal askan wi daa ñu ko xamal julli yi. jërëjëf sëñ Hamid Sy ibn Abdoul Aziz Sy Al Amin. ñu yendoog jàmm kon euh, ñu fàttali ni tey la ndorteelug liggéeyub yeggalug jumaay Tiwaawan yi jërëjëf euh, alaaji Georges Déthié Diop jàngeen jëf mbokk yi kàddu gi ñu delloo ko alaaji Ndiogu Diène ak euh, faati Dieng ñu yendoog jàmm Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission,